waaw dañ koy defee weer bu jot ci ndigalu kii li réew mi tey aussi eh, dañoo doon dundal journée nettoiement bi eh, ci commune bu bu bu Kaolack eh, ci programme bi nag tànnoon nañu ñetti école ni ko xam ne noonu la ko kilifa fay demandé parce que dañoo waxoon niñ ko defoon ci weer bale passé weer bi aussi nañu def intervention yi ci école yi moo taxoon aussi école la ñu tànnoon ñetti école la ñu tànnoon à euh, titre symbolique pour def fi nettoiement bi bi ñu xëyee aussi jaar nañu ci site yëpp ànd ci ak euh, madame le maire ak euh, coordinateur coordinatrice bu sonajet, ak cadre de vie nga xam urbanisme urbanisme urbanisme la nekk ak police ak armée bi anaka daal ñëpp dugal nañ seen loxo te bi ñu terrain bi aussi gis nañ ne def nañ ci liggéey bu am solo école yi ñu jaar yëpp daanaka lépp set na donc loolu am nañ ci amal nañ leen ci cant euh, di leen remercier di leen féliciter waaye surtout di leen encourager pour que ñu mën a continuer liggéey bi li ñu gis mu manqué rek mooy askan wi ba tey gis nañ seen taxawaay des na te loolu lañu ñu gën a jublu ci ci bés bi naam Sonaged toujours ñu ngi ci terrain bi garde de vie ñu ngi ci terrain bi. police mhm. exemple rek lañ doon joxe pour askan wi. xam ne lii ñuy def ñoom itam dañ cee war a dugal seen loxo te wax dëgg yàlla côté boobu gis nañu des na lool lool lool. kon nag ñu ngi lancé appel la population pour que bés yu mel nii bu amatee surtout seen quartier jeunesse bi ak euh, organisation de femmes yëpp mën a génn dugal ci loxo pour li ñuy xaar yëpp ñu ñu mën ko am. waaw li ñu mën a dikkalaat ci bés yi mooy d'abord ñu ngi nuyu suñu kilifa monsieur le préfet. vraiment di ko jaajëfal parce que dañ ko fekk mu futteeku ci biir ndox bi nek vraiment di buddi ay ñax dugg ci biir ndox mi donc euh, lolu je pense que image yi dinañ ko wane donc bu doon acte bo xamni daf ñu daf daf ñu de trop donc on était obligé vraiment fekk ko ci biir ndox mi donc on a fait le tour des écoles yi nga xamni ça a été ciblé officiellement pour que ñu xool liggéey bi fu mu toll vraiment ñu ngi remercier la SONAGED di remercier la police nationale les la gendarmerie di remercier aussi cadre de vie parce que limay wax rek mbolo moy doole té lu ñëpp songu daan ko ci continuité activité yi nga xamné monsieur le président de la république son excellence Bassirou Faye joxé nako yakarna yaakaar Kaolack desu ci ginnaw may ñëw rek ci appel bi nga aussi le préfet lancé na ko qu'on va faire vers la population il faut que population bi génn ñu approprier de ce programme c'est un riche programme vraiment bien nga sous ni suñ ko ak euh, kilifa yi askan bi ni réussite de ko am fi ci parce que li wax rek zéro déchet la soxla dans la commune de Kaolack mais gis nañ ba la population ba sobo guñu comme niñu donc vraiment ci lolu ñu ngi leen ñaan aussi la commune la sonachette le cadre de vie la police la préfecture vraiment pour que ñu mën impliquer à 100 pour que vraiment nga xamni heure buñu xeyé rek buñu djublo ci école yi wala ñu ci quartier yi réussir à 100 Nous di wax euh, sous l'autorisation de Michel le maire Serigne Boub monsieur le préfet ma lay ni dañu def euh, groupe de jeunes qui xamni vraiment accompagner les actions de la commune ñu tuddee leen force ouverte au maire Il y a un groupe de jeunes qui nous a def une expérience sur le terrain donc Inch'Allah, dinañ fa on sera avec ces jeunes vraiment ñom aussi ñu jàngal leen des actes de citoyenneté il faut avoir l'habitude de faire un don de soi donc l'ol que li nga solos nous ñu indi que def le préfet Nous, def ñu que fekk la ci biir vraiment nous affaire bi parce que pour le préfet day tok ci donc l'ol aussi ni acte bi nga def ni, ñu koy parce que day nous avons ñu a nous, en charge une propre localité la prise en charge merci beaucoup. waaw comme niko, nous, nous euh, di rafetlu bis bi parce que seetlu nañ ni depuis ay weer a ngi nii ñuy def euh, mobilisation set setal weer bu jot ñu tànn ci benn samedi di ko def di ko jëmmal. bi école tijjee nag ñu cibler les écoles parce que xam nañ ne yi parfois les conditions ne sont pas réunies pour euh, bu école tijjee liggéey bi mën a tàmbali mais depuis première journée bi ba tey gis nañ ni gars yi soobu nañ ci donc boo xoolee macha allah ñun suñu première. Euh, mobilisation wa jeunesse euh, du quartier mais aussi UCG aussi fi plus les élèves et euh, les quelques parents d'élèves donc deuxième journée aussi l'équipe là élèves vitamines tamit parce que nous avons fait fekk loxol borom ñun comme ñun ñoo fi war ñeneen ñi donc ñuy remercier tous les acteurs yi cadre de vie UCG police Sonaget euh, de remercier aussi la représentante euh, du maire, de, remercier aussi le préfet avec euh, les, les, les agents de, de, l'IF comme inspecteur Badji.